billaahi su ma xamoon ne man maa ngi dégg rythme yi démb si guddi laa doog xam ne aji la fan yëpp maa ngi dégg ay riir ñu na aji aji saar aji saar ma ne ay waay kii dëkk Fatick suñ ko tayee di def lii ndeketoo ki ma xam la ndax aji jubut jubul de képp ku koy jàppale na nii Ousmane Sonko def leen ndànk jàppale wu ma Ousmane Sonko jàppale wu ma Macky su ma bëggee Macky Sall dem bi mu demoon guddeem laa ko bëggee Ousmane Sonko su ma ko bëggee la muy wax. ci làmmiñam xaw ma nag moo ne si xolam la muy wax si làmmiñam laa la wax de ta mu doon feebaru réew mi moo tax ma bëgg ko kon nag ñoom ñaar falalu ma si kenn jege buy am Macky laa gën a jege ndax moo xëccal waa guddeem courant moo def lépp aji dañ doon déggante ma koy conseil lu ne lu ne la ma doon wax ba benn jour muy def ay tojaangam di envoyé ay photo yu bon xam naa dafa jaawale numéro yi bu ko bu ko envoyé ku góor envoyé ma ay foto yu bon fu mu ko ba nu ko ndeyam juree lépp maa ngeeg moom comme li ma xam ne lii laa santiro moo tax dindiwu ma ko matu sa vingt jours la mu def noonu kon tey nit ñi Sénégalais jóg di wax a wax a wax wax def ndànk si li ñuy wax ay ma ne la aji éeréer yi nii nee naa leen du tey billaahi la si laa ilaha illa huwa barke alquraanil karim dara darajaay bàyyi salaam laa leen géñal ak su bakkanu doom aji raabi laa leen wax problème yi du tey man mii ak keneen ak keneen ñëpp konoon ñu ngi naan di rey na wala diw tëdd na kaso aji dem na ñëw ak nit si ñàkk fayda grâce mi la ok ba benn grâce aji dem na euh, accusé nit loolu ndax loolu accusation ne dafa liggéey weer ba weer bi jeex waa ji bañ koo fay mu dem kër goo weere yére ñooñu ñëw ñooñu attaqué si ñu fekk ñu ngi toog di attaaya ñoo ñëw rek mu dëgg si kër gi ñun sax xamul lan la ñoo koy tooñ mu jëkk si rek waaxu waxut ak kenn teg mbuus ndek ay yére jàmbur la andi noonu ne kook da koo yoreel xaalis bañ koo fay mu jël bagage am yi noonu ñun tamit ay innocent la xam nuñ demee ay góor yàlla ni ñun daw bu ko attaque dugg si kër gi ma taxaw suñ benn xar bu ñu yeew laa bu di daaj bi téye ne ma buti sa waaye buti la ngeen jégal ma gars yi ne ma xaanoo ah, dalal ñu aate mais ba femme bi waxee ñu déglu waxam déglu waxi aji laa ne ko waxoo dëgg da ngay fen ci kanamu gaay yi aji noppi naa waaw nangam nangam am suñ benn mbokk bu ñëw déggalaa lool ne aji liggéeyu day wuraalu ginnaaw raay man mii di wax ak yooyu chaque jour moo may fëgg naa am di may ñaan lu ma ndékkee kon dèjà ñun bu ñu xeexatoon ñooñu bu ñu demee si yoon ñoo gañe ñu bu ñu demee si yoon ñooñu gañe ñu man de wallaay lancim il faut tamit aji moom man moom gàcci la ma teg man nag du ma wax dara maa ngi bàyyi ay fenkat yi di weex naan moo ko def wala defu ko ma génne vidéo am yëpp billaahi wal kitaabi képp ku doon wax nag di nga raam Ousmane Sonko raamal ko xam ne aji soskat la fenkat la ndax vidéo bii ma yor nii su ko ko tegaloon dina gis boppam a ba zëdd de mais ñeme naa taxaw ne du moom ndax xam naa ko bu doon saw sa nga tee ko si loxo ne ko kii la mu ne du man sawuma loolu xam naa ko ñun ay mbokk aji xam nañ aji bu baax ñu naa aji Fatick aji naa aji dëkkut Fatick aji dëkkut Fatick aji mu ngi dëkk dëkk bu ñuy wax euh, Maya fala la dëkk gannaaw Fuujuñ dëkk bu si àll yooyu si dëkk yooyu noonu booy dem nu côté Jirnda dëkk bu ñuy wax Maya fala la dëkk doon jàngee Jirnda yaa ngi dégg yaayam avant muy gaañu benn militaire moo ko takkoon pa waajo militaire bu amul lu mu defalut aji pour aji yem si tojaanga yi mu doon def nii rek la ko doon bañal yére mu jënd xaalis mu may mais dafa dem ba xam ne aji mi mën na koo andil problème mu bakk mu dem bàyyi kook sagoom yëpp bettuma xaw ma ku mu bett am na tamit samay moroom ñoo xam ne bettu leen man dem rek dama wàcc si liggéey ñu ne ma aji mi ngay ni aji naa moo def lii ma ne non aji saar la ñu wax ñu envoyé ma photo yi tuut ma wëcc fi ma ne. ma ne kon kii lii tax réew mi yëpp ku ma xam la ku ma jege di déggantoon moom chaque jour loolu tax doomi xaraam ji nekk lii tax na wut a wax ak nit ñi mais nag il faut ñu def ndànk ah def leen ndànk sama gars yi. jàmbaar loolu laa li wax rek pour ñu def ndànk quoi bu baax a baax. da man su ma déggee ki nekk ay audio France nekk naan waaw kii ay teg ay audio jigéen affaire yi daf ma jàpp ay ree ndax kooku xamu leen ko lam capable man mii xam naa ko ñeneen xam nañ man su ma xarit bu ne Espagne fa moo ma ko yéegee moo ne ma ajiraa bi ma ne ko ma ne ko waxoolu am mu mu xàqataay noonu quoi ne ma xaaral ma woo diw sax diw mi mu bëggoon a taraay def loolu kooku tamit moo xool ko si liñ bi gisuma ko ma rey tëdd ma ne noo mënta nekk ajino mën na amee noonu bës si àdduna si nii di tas réew mi nit ñi di reyante ma xool ndeke moom la ma ne kii nag ñu lii tax ma ne kii ngi def ay tojaange ñuy fexe pour yedd ko mu dellu ginnaaw ndax léegi nit ñi ku la dul takk bu la def loo yenn yi affaire yooyu si lañ nekkoon yaagoon aji ñëwaat def yi aji na nit ñi def ndànk si moom na nit ñi def ndànk ci moom ñii di wax fii wax fale ay Ousmane sonkook Macky Sall ak loolu man sa gëw ne ay Macky yi ay loolu ñàkk fayda yooyu dina ci dem sa ba yi si tomb ay nit a ne ci ginnaawam rek wala mu doon kompolom ndax moom xel moom ñu yore kenn yoru ko mën naa taal réew taxaw fee ku koy miimal na nga def ndànk balaa muy bàkkaaloo yenn nit ñi def na ko fi nit ne kooku da koy liggéeyloo weer ndeke quatre jours la fa liggéey ñun ñii ñu bëggoon see dugg ba ma bëggoon see am problème ba mag bañ demee ba xam ne dafay fen dañoo reculer dellu ginnaaw moom mu dem ba d'accord ne dafa fen ay cinq cent mille franc lu ne maa ko defal naa ko ko bañ mu foyi rek ay mille franc lu ne dama ko doon may mu ndékki toog fi mu toog bañ mu buusee ba ma koy mujjee gis wallaay la xasin euh, maa ko jëlal taxi kalandoo mu dem ba euh, nu mu tuddati syndicat mu dem ba syndicat jëlee foofu oto ñibbi Grand Yoff dama ko faate mu yore benn mbuus gu weex ndax wax digg yàlla man li liñ ñu doon teg ci deram moo ma doon metti ndax lim amul yaay doon xale ñu bokk noonu rek fu mu dem papa di ji dàq tantam bi wala sam bi bañ ko balee laa la saani ko si biti bokkoon naa si ñu ko jàpp ak suma benn mbokk ñu dugal ko si kër gi naxanteeg nabu nabu ne du fi fanaan ñaari fan mu fanaan fa jàppanteeg nabu nabu ne da koy génne ñu négocier ak nabu ku baax sagam nabu la të nag foo naa ne ku bugg a xam aji si lu wóor defal nga gën a raay nga laajte nabu li ma leen wax nag euh, takk leen ma ko téere dëgg jafa muy mujjee ñu bëri dinañu rus nañ def ndànk bu baax ndax ki may wax xam naa ko. waaw dañoo mos a toog mu ne ma naa feq weesuwul nga xam dëgg ba pare xam dëgg ba pare te sa yoon nekku ci nga wax ca naa feq weesuwul lool Sénégal nag ñun loolu la ñuy dund comme nga fekk papa ak doom di jote nga ñëw wax papa yaa tooñ yaa ñàkk jom sa doom jee am dëgg. dèjà loolu naa fexe weesu donte kat doom jee tooñ sa papa jee tooñ war ngaa jox papa ji dëgg soo paree yeddi doom ji ñun Sénégal loolu la ñuy def da ngay gis gis nga door nañ fi sëriñ daara kenn waxut kenn jógut kaas sëriñ diine yi kenn déggoo kenn ku si wax sëriñ kilifa aada yi ñu jógewaat foofu tëj fi imaam ndaw kenn waxul il faut ñu def ndànk kilifa yi tamit jóg artu ñu wax te Sénégal li ñuy dundee léegi dafa doy waar bu ñu ne ŋaañee yonent bi doo dégg kenn ku yëngu bu ñu waxee luñ sofaan ci benn sëriñ àdduna si yëpp génn waaw sëriñ diw attaque fii dugg na fii ku ne di wax dafa mel ni ñun gëmatuñ yàlla ay ngistan la ñuy dund il faut ñu def nang aji nag man duma ko jàppale si dara ndax def ma bettuloo man dafa rusloo kullu dëri ñoominka dafa rusloo kullu ku dëkk si ndox mi da laa rusloo ndax kii du nit ku baa ñu koy jàppale tamit di wax nañ def ndànk du benn yoon du ñaari man mii di wax ak yéen amul lu ma ko deful école yam doon fu mu romb ñu naan miil francs rek nga laal ko dama doon kaas di koy dimbale ndax ndeysaan li mu doon jirim dama yedd ba sonn ma suma benn mbokk bu mu doon àndal maa fexe bañ baaxante ndax aji daay teg diil di santaas ay nit loolu rek moo ne newoon dundam ba ma koy mujjee gis bët ak bët maa ko jëlal kalandoo mu ñëw jour dimanche dañuy bi Grand Yoff man mi maa ko jëlal kalandoo waa ji naan mu ngi France yor na numéro diw tëddëg naa moom waxul dëgg na ma wax aji numéro bi fu mu commencé ak fu mu mujjee wala aji fu mu dëkk ak aji fu mu cosaanoo waxul benn dëgg kooko waxul aji ay mbokk ma leen ko gën a xam ñu ngi ginnaaw raay papam bi ko jur sax du wax ak aji ndax ni mel ka ko yoroon man maa ci doon wax ba kooku yore ko billaahi la si benn guddi génne na ko maa ci wax wallahi landim ba kooku dencaat ko si kër gi matu ñaari fan kooku balewaat ko looloo ko yóbbu Grand Yoff si yémuy def lii mel nii il faut que ñi tamit defaan nag ñun ñu war a wax nag man su ma xamoon ne aji coow li moom la konoon depuis barkaati dee ma ma déggee coow li laay dugal vidéo bi yëpp si réseaux sociaux ni ñuy gis ko xam ne tamit nañ def ndànk balaa ñuy accuser nit ñi te lii ñi luy nag si ñag bi la jëm il faut kilifa diinay artu ndax lii nii dafa ëpp loxo accusation nu ñuy wax nii lépp ay pexe la rek tubaab yi tubaab yi lu ne ñuy wax Sénégal yi ñiy yàq Sénégal ñu ngi Sénégal ñi war a àtte ne ñooy dëgg dëgg violé weesuut milliards askan bi ñi fi ay nit yi sàcc ko ñu jàpp ñi ñuy changé ay faux billets kilifa yi war a wax waxuñ ki war a àtte àtte ñooñ tëj leen ñu ne ñu ngi topp usmaan bàyyil Ousmane jàppal aji xolal feebar bu ñuy laam-laami ñaari fan yëpp déggoo waxi corona waxi Ousmane waxi Ousmane waxi Macky waxi aji kon nag feebar bi xanaa du dëgg il faut tamit ñu yeewaat ñu yeewaat déggatoo kaay Idrissa Seck déggatoo kaay keneen kaay Ousmane Sonko rek ngay dégg nañu yeewaat delluwaat suñu xel si yàlla bu baax a baax. kam naxoon jifiir kooku foo naa doom nijaay la ci moom mbokk yi jege la. kooku de doon mbaali du dàll du yére du jiin amul lu ko defaralul du téléphone lu ne defal na ko ko ba kooku tamit ñu koy gërëm yaakaar ne moo koy takk jabar ba nit ñi yëpp àddoo si takk bi mais nag moom tamit xelam dalutoon ndax nu aji comporto diil yi muy def ak ñu muy santaa di tëj di def ay defam kooku di ci def lu ne mu xëy rek yëkk fi kooku ne yëkku teg ko diil dem yooyu si lay dund si lay dox moo tax ñi ma dégg man démb laa doog a xam ne moom la démb laa doog a xam ne aji raabi la nañ def ndànk na ñi war a aate tamit nañ bàyyi ñuy def nii gis lañu war a aate aate ko milliards yi ni ñuy jël denc ko war a tabax yi ñi war a faju faju defuñ ko ñooñu jël milliards yi lekk si sëriñ diine yi tamit xam nga ñu bëri dañoo am wàll si affaire yi réew maa ngi yëngu waaw ñu jox la milliard rek nga war a wax dëgg doo wax dëgg war a wax yàlla rek tax doo wax jox la milliard ngeen ne président yàllaa ko fi teg président yéefar yi fi nekkoon di lor nit ñi sax yàllaa leen fi tegoon waaw dëkk bi Sénégal dëkk jàmm la di nit ñee fi tëdd màkka ña gën a noonoo yenant bi ñu nga màkka fa yenant bi tëdd ñoo ko gën a noonoo ñu nga foofu kon nañu bàyyi naan Sénégal réewu jàmm la yi réewu jàmm la dëgg la mais liñ fi gis nii dafa day waar il faut nit ñi di wax ndax kii nii ñuy jëlal paar nañ ko laaj ñin ñu ko xam ba pare balaa wax ji jëm kaw waaw ku baax jégalu rek euh, foog naa ne eti bi ñu yaroo saaga waruñu génn si média tamit di wax waruñu mais li ma xalaat rek ku yaroo si keppaaru bàyyi salaam wala ku siñ bas yar foog naa am na noo mën a comportoo si mandute si jaamu yàlla si lu ne waaw donte que nag ay duñu dara nag mais ñu ngi jéem suñ kemtulaay kàttan mais loolu rek lañ si xool mais konoon vidéo aji démb mu ngi si YouTube bi te du ma ci nëbbu dara man mii di wax ak yéen mais li ma si sóor moo nekkuloo loo mais nag di jégalu nag comme euh, saaga yi moom te xoo xaw ma ne sa saaga naan ndax wax dafa bëri erreur man nga wax ba pare te xamoo loo wax mais nag il foog nit ñi def ndànk man audio yi ma déglu ñu naan ay jigéen di wax benn góor naan mu ngay France mu ngeeg nii maa ngeen nii Mor Ndaw fi waxul dëgg kooku moom waxul lu am jox leen ko sama numéro mu jël ma fu mu mënta ne mu ne ma nii aji nii na ma wax aji fu mu dëkk ak aji mos na koo gis na mu mel ak aji fu mu juddoo kuy bàyyi. ne ma laa kaay wuy sa yaay sama yaay du ma wooyee paaka du ma doomu aadama déedéet kay ndax maree ma jur nee na moo fi mën waaw waaw kay ci laam meñ du rëy lu tax demul fenn jaaxalu la labelu cuura la signé woote fi booy gero na waat fee mar ay taar a ma métte bi waaye ñoom ñëpp nag laara tartaar lu bala di xoole ba at bi sifflé am ma bëre ba wóor ko nomba noonu nga may dégloo naan aw oh, te taku ma nomba nga naan kii du booy gëro bi man la waay